ba tey ci seen scandale du jour kii di aadamoo nag moom dafa te na révélation nañ dem déglu li Adamo wax xam nga man Adamo ay mbiram sawaruma ci nañ dem déglu Adamo li mu wax moom la bàyyi saal waroon na fay déglu leen moom bu baax Wally dem Amérique ñëw ne bàyyi saal mu xaar ko mercredi lay ñëw Wally dem mercredi borom hôtel bi euh, euh, Baye Sall ne day gisanteeg waal yi daal di génn ci guddi gi dem gisanteeg waal yi dikk borom hôtel bi ne dafa soxla xaalisam daal di jël xoolal daal di di jël ay valisu Baye Sall ak ay valisu ak ay valisu euh, maaraak ñoom ñëpp daal day téye valis yi buñ ko fayul du lu génn wala du lu jot seeni valis Baye Sall fay xaaj bi dasa xaaj xam ngeen ma kan moo fay xaalis boobu noonu Matar Diop suba teel mataar Diop suba teel barki Serigne Babacar Sy moo ne xaalis pap Sénégalais bi fayal Baye Sall pour mu jot ko loolu ba tey xamu leen ko. allo. ah. ma jub dalaa fay xaalis bi. nekkul fa bas rek la lépp laa ko léegi nag da ngay léegi nag da nga koy message nga ne ko xaalis bi bàyyi ko Matar Diop suba teel fay na la ko. fay na ma xaalis boo paree xoolal nga nga pare ci nga pare ci moom nga bloqué ko ndax Baye Sall du ci baax bu leen sax di déglu ay message wala déglu lay wax. yaa dégg. alors paree nga pare ci ñoom bu leen tax di ko am lu leen di wax yow boo paree boo ko waxee li koy wax boole kenn nga pare ci moom. su ko jeex na merci beaucoup jërëjëf ba ci kanam. jërëjëf jeex na kii moom mooy Pape moom moo gérer Rey Malmaison mooy liggéey ci biir moom moo jël kartam fay ko ci Baye Sall ne ko bu demee a Sénégal dina ko delloo xaalisam muy woo baysal Sall Baye ko ma woo Salimata Gueye Salimata Gueye ne dina woo Baye Sall tey nii xam nga kan moo fay xaalis bi Matar Diop suba teel man Adama maa ko wax Matar Diop suba teel mi nan dafa bon baaxul buggul waali doomu xaram la day defante moom moo fay sàmbur yi nga xamante si nii moom la fa bàyyi sal fa bàyyi te fayu ko te waa ji mi ngi senegal war a takk jabar ojoy baal sal yaa ngi nii maa ngi ñëw fàttewuma la naa ko rek la koy may. ñoom la rek ñoom faramaare yi ñoom la rek man loolu laa ciy wax man Adamu saa yu waali demee Italie xaw ma fan ñu gis ko sur seen waali waali woy na ko fa ba taay ñoom la rek ba tey ñoom faramaare ni la rek ma sonn ci kaay man ñoom la rek. ku ci mën maandu daal maandu ci ñoom la rek ñoom faramaare yi mm-hmm. ñoom la rek. jadi jadi jangan tahu Yon di gwe te di fi waj Yon ti na wakounen